gisee boroom xam-xam dañuy yàkkamti ñun laajkat yi ñu laaj leen ko muy wàllum làmb soxna wàllum làmb tey d'abord bala ma wax ci làmb ji xaw diggante Tapha Tine ak Balla Gaye est-ce que di nga ci seet ba mën a xam actuellement kan mooy daal. man dama daa wax ne. menn mbër moo am moo xamante ne si heure buy bëree jaral na ma jël sama kurus fatu di ko ñaanal ba yàlla may ko ndam muy Modou Lo euh, jëmmi Balla Gaye nag damay bëgg ñi nga xam ne yàgg nañ maa topp. ma dem ma wax leen ñu dem xooli la ma ci yàgg a wax Balla Gaye ba mu jugee ci làmb Yékini laa njëkk a jug taxaw génn fii ne Balla am na lu nekk ci moom loo xam ne bu dañu pour mu amati ndam du yomb waaye nag dama bëgg a wax nit ñi ne leen man waxuma ni diw mooy daan waxuma ne nangam mais dama ne Balla Gaye ma demoon dellu si waat na. Balla mi demoon. dellu si waat na. Balla mi ne woon forum bi jàpp Yékini tëral. mii ma xool ay mbiram démb ah am Balla la de. dañ ci def attention. bu baax a baax a baax man nag wax dëgg yàlla. <laughs> Euh, du ma kuy sabootee fi jàmbur daal ay ñaari ñi di jàmmarloo ma génn naan euh, kii waaye daal wax dëgg yàlla Tapha Tine moom ba fi mu nekk nii dajagut sarax bi daan Balla actuellement victoire bi nekkagul ci loxoy Tapha Lingé. sarax bi daan Balla Gaye dajagu ko de. waaw mbokk yi tubarkalla xam naa egsi ci cotal jotaay bi d'abord li may expliquer rek mooy dama ni à chaque fois nit yéen ñi nga xam ne ñaanu surtout yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci diaspora bi à chaque fois bu leen di gis ku ngeen gis xam-xamam ba xam ni kii nii war naa war naa mën a faj ay aajo actuellement ñu ngi si jotal jotaay bi tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy alxamis ñoo ngi Touba Alié ci poste gendarmerie bi ku ñëw ba ci poste gendarmerie bi boo xoolee sa penku koo laaj kër Serigne Cheikhouna Diop mu wan la ko wala bu la neexee gendarmerie ci jëmmam boo leen laajee kër Serigne Cheikhouna Diop ñu wan la ko lu jëm ci mbiru seet nopp listixaar sangatu ubbiku loolu foofu lañ koy defee. su nekkee ne lundi altine ñoo ngi aliyee ci jàkkay sëñ Mourtala ji faj rab ndoxum siti hémorroïde ballottement ulcère yooyu yëpp foofu lañ koy defee lundi dix heures ba dix maanaam bu jant bi génnee lañu tàmbali bu jant bi duggee ñu wàcc su boobaa rab ak rab nu mën a mel donte keneen nit ki bi muy ñëw dañ koo yeew indi ko su ñëwee fi mu toog lay toog dañ koy faj ba mu wér mu door a dem yoonam su nekkee ne itam rab daf laa tee am doom nga yàgg say trop mënu am doom kooku noonu dañ koy faj moom it dañ koy dindi dañ koy faj su nekkee ne itam nit ki rab daf koy yàqal ci wàllum jëflante ak nit kooku altine su ñëwee incha allahu taala dañ koy faj rab daal lépp nu mën a jàppee nit ki su ñëwee lëndi incha allahu taala dañ koy faj ba mu set su nekkee ne nag nit ki euh, judduwaale wu ko laa wax waaye su nekkee ne daf ko judduwaale boobu duñ ko faj dañ koy seetal wax ko ay saraxam mu daal di dem def saraxi euh, rabam mën a noppalu mën a nekk ci jàmm te sarax dañ koy wax buñ ko seetalee ba def ko bu ko defee immédiatement dana ne ci jàmm ci atum yàlla moo xamante ni si li koy dikkal di ko du ci dikkal li ko yàqal du ko ci yàqal euh, waaw ndax rab day digg ak yow wax naa la fii rab du war su ko defee ne képp koo xamante ni si da ngay ñëw nga woote ba noppi ta respecté heure yi ndax dafa am yu ñuy tàmbali ak heure yu ñuy bàyyi su ko defee kon noo ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu tànn ko wér waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi doon topp télé bi nga xam ne mooy Buzz SN dama leen wax nag à chaque fois innovation bi mooy dañuy gën di indi xam-xam lu gën a convaincre nit ñi lépp lu gën a mën a jëriñ nit ñi Buzz SN à chaque fois fu mu nekk dina ko jëri leen ko ci kanam tuuti xam naa ci yeneen jotaay dina ñëw ci cabinet bu mag boo xamante ne bi tubaarkàlla lépp loo xamante ne day joxe wàllum garab yi nga xamante ne bi sëriñ bi lim na ko fi incha allah dinañ naa tubaarkàlla ba beneen yoon ci beneen jotaay ak télé bi nga ne mooy Buzz SN ngeen jëf